tey dañ fee daje woon di di joxe ay euh, matériel ay fourniture scolaire mooy ay cahier ak euh, lépp lu mu àndal pour jàppale euh, élèves yi ak parents d'élèves ku nekk xam ne dëkk bi xaw na métti tuuti mais nag ñun ñëpp dañoo war a joxante loxo bàyyi xel te xam ne système bi au niveau mondiale moo xaw a déréglé wu tuuti rek ñu muñ tuuti président de la république mu ngi def ay effort mais ñun également au niveau des collectivités territoriales war nañ def ay effort pour jàppale. système scolaire bi jàppale parents d'élèves yi li si gën a li tax ñu war ko gën a def nag mooy njàng mi dafa bokk suñu priorité parce que bu fekkee ne da nga bëgg a préparer say doom pour ëllëg ñu mën a buuxante bu baax si àdduna boo xam ne àdduna concurrence la dag leen war a jàppale si njàng mi jàppale leen ci wér yaram waaye jàppale également ci environnement bu baax loolu moo tax ñetti secteurs yooyu nekk suñuy priorité tey jii nag ñu dellu si waat si wàllu njàng mi fan yële passé si mouvement am dem ñëwoon nañ def benn fête de l'excellence ñu primé woon trois cent quelque élèves yi nga xam ne mooy ñetti téeméer ak juróom benn fukki élève yi gënoon a ràññeeku si seen résultat ñu jox leen ay ay cadeau ñu teg si quelques semaines ñu dajale eh, ñaari junni ak juróomi téeméer élèves yoo xam ne ñu si bëri seen parent yi seen loxo àggul seen ginnaaw ñu jox leen ay saak ak li muy àndal yëpp ñu mën a jàng si condition yi baax tey jii nag mairie bi moo aye moo jël si budget ñeent fukk ak euh, juróomi million ñu jënd ko ay fourniture euh, ay ay kay ay demee noonu jox ko teg ko si loxo inspecteur mu war koo séddale ñi mu àndal di liggéey yëpp pour jàppale tamit euh, parent di leen jàppale école bi. parce que école bi kat ñun dafa bokk si suñuy priorité loolu même bu fekkee ni mu ngi représenté ñeenti yoon li nga xam ne moom lañ amoon habitude di joxe ba tey jii ñun àggagul si suñuy ambition te bu déwee ni incha allah di ngeen ko gis bi si topp mooy ñu ngi ko daan joxe ay avril ren góor euh, góorgóorlu nañ ba joxe ko mois d' octobre waaye déwén incha allah dañ fexe ba joxe ko au plus tard balaa fin de mois de septembre. Euh, wax nañ également ne ñu kay baax na waaye am na leneen lu ñu si toftal mooy ay euh, photocopieuse ak yu demee noonu yoo xam ne dina leen permettre ak ay rames de papier imprimé seen test yi ñuy def ak évaluation yi ñu ñu bañatee nekk di jaaxle di dem di fay xaalis bu bëri si ay ay ay ay kii yoo xam ne pour reproduire ay ay papier ak ay ay loolu tamit dina leen ci jàppale bu baax waaye ñun tamit boole nañ si ne dinañ dem ci école yi fexe ba mbuur dans quelques années dootul amati abri provisoire miiru école yi inspecteur nañ ko xam nañ ne am na yu daanu am na yoo xam ne tamit état bi mu nekk dafay présenter insécurité pour suñu doom yi yooyu tamit lépp dinañ jël programme pour euh, defar ko ba mu baax waaye loolu yëpp nag dañ siy sukkandiku si xam-xam ak expérience inspecteur ak ñi mu àndal parce que ñoom ñooy suñuy conseiller ñoom ñooy suñu bras technique par rapport ak lii ñuy def mu ngi ñuy préparé benn document boo xam ne incha allah mooy doon sunu yoon bi nga xam ne si lañ war a jaar ak ànd ñoom pour defar système éducatif ba Mbour bokk si dëkk yi gën a ràññeeku si loolu. ren par rapport ak daaw mbuur def na maanaam yoon kii bu maanaam jéego yu rëy si wàllu résultat bee passé juróom téeméer boo jël juróom fukk ak juróom-ñeent yi ñoo réussir ren téeméer boo jël. Eh, juróom ñaar fukk ak juróom yi réussir nañ muy ñu def benn avancement presque fukk ak juróom yi poñ si benn at defe naa ne kon ñooñu dañ leen war a féliciter accompagner leen ah ba pare lépp loo xam ne wax nañ ñu ko comme doléance incha allah dinañ ci def lépp luñ mën ànd see conseil municipal bi pour que résultat yooyu gën a baax dans quelques années ñoom ay 100 pour cent ak ay 90 de 99 pour cent. ren ñun déjà dinañu construire euh, juróom-ñaari salle de classe si budget mairie bi mais également dinañu ñu ngi commander nañ 1500 cinq table banc yo xamné ne na naa bu ñëwee inspecteur xamna na loolu lu muy représenter defe na bu ñëwee dina soulager bu baax euh kii bi euh, système éducatif bi ci top moy euh walu ndox courant ak même euh, téléphone wala euh, internet si yenn école yi wala si yenn bureau yi comme inspection yi demee non en tout cas lépp lu ñu mën pour accompagner inshallah allah dinañ ko def parce que comme niñ ko xamee rek suñuy doom ñooy yendu si école yi war nañ leen mettre si conditions yu baax loolu lépp luñ si mën au niveau de la mairie pour accompagner pour prendre en charge yenn frais yi incha allah dañ dañ ànd ak ñoom ànd ak également comité de gestion yi nga xam ne ñoom ñoo nekk si école yi pour que problème yu mel noonu kenn dootu ko fa déggati. moto Jakarta yi ama amagum na ak ñoom ñaari réunion euh, defe naa dinañu dajewaat ak ñoom ñetteelu réunion bi. bu ko defee ñu mën a xam définitivement euh, lan la ñuy euh, déggoo ak ñoom lan la ñuy décider ak ñoom par rapport ak euh, circulation bi nga xam ne ñoom ñu ngi ciy participer actuellement. parce que tamit ñun ñëpp ñoo ko constaté ndoo am na ay jeunes ñu yor ay jakarta di trans di def transport actuellement léegi nag dinañ leen oo ñu waxtaan ak ñoom ñu def li ñuy wax bilan coût avantage xool lan moo siy njariñ lan moo siy loraange. après nag bu ñu calculer loolu yëpp évaluer ko xool lan moo si intérêt Mbour ñu jël si ay décision yoo xam ne euh, décision yi bu dalee rek ñëpp lay ñëpp ñoo ci euh, àndandoo mais duñ jël interdiction pour interdire wala autoriser pour autoriser lépp lu ñuy defee day fekk ñu waxtaane ko xool ba xam lan moo ci njëriñu Mbour ñu doxal ko te incha allah bu boobaa nag dinañ ko informé waa Mbour yëpp xam nga décision yi ci